ànd leen ak seen portail Baol Média di première portaay d'information générale fii ci région. salaamaaleykum wa rahmatullah ñuy nuyu tous les sénégalais di nuyu tous les diaspora surtout nag ne ci bi ñu leen di nuyu ak salaam sa ci yéen di wax rek ci ak élection yi génn jàll na jàmm ñu koy sant yàlla bu baax baax a baax waaye rek di am. mbégte bu baax ci sénégalais yi dem contentement bu réeré ci sénégalais yi voilà bi leen nuyoo ne ba pare nuyu waa Ndefa Sénégal gi nga xamante ni yàlla dogal ñoo ko nekk sa ak sa sant maa ngi nuyu responsabilité responsable yëpp maa ngi nuyu tous les tous les membres de Ndefa Sénégal vraiment di beral nuyoo ak cant ah Mouhamed Seye ci taxawaay bu rafet bi mu taxaw ci liggéey bi vraiment. di nuyu suñu ñoom yaay ndeyloo di nuyu euh, soxna Binta di nuyu ñëpp soxna Abi am ñu seen fay yàlla yàlla fayal boppam donc ñu leen sant di leen gërëm suñu fàllu si lay si mataar ñëpp ñoo leen nuyu di leen leen gërëm ku lim da ngay jum euh, soxna kenn saa ñëpp rek bëgguma lim su ma damay jum mais en tout cas daal ñu leen di nuyu yéen ñëpp fu waaye bu nekk ñu dégg si di suñu kàddu man Cheikh Sylla maa leen nuyu di la di la wax di la sant di la gërëm sa taxawaay ngir senegal ndax wane ngeen fulla ak fayda wane ngeen patriotisme wane ngeen lépp daal wane ngeen njàmbaate di ci indi ay jàngat nag yu ndaw ndaw rek ci li xew Sénégal li xew Sénégal euh, tey waxoon naa ko avant élection yi di am waxoon naa ko trois mois avant élection yi ma ne leen nañ xam ne dëkk kenn kenn du ñëw defar defaral la yaa ngi defaral sa bopp te politiciens yi fi nekk nii 1960 ba léegi nekk dañoo nax motuñu 1 pour cent Sénégal dañu nax loolu dafa war a dakk dafa dakk nag mooy ñi si jiitu tey yàlla yàlla wane na dëgg dëgg mooy dëgg rek dëgg mais ay naxante ak i pexe loolu yorul réew defarul réew lijjantiwul dara ba tax na ñi nga xamante ne dañoo transformé woon dem ci Macky Sall te Macky Sall ku ne xam na ne depuis 2012 ba léegi ci ay naxante la ak Sénégal yi waxu leen dëgg du wax ak ñoom bu waxee ñoom balaa waxatee ñoom dana mat at wala 6 mois mu nekk lu ñaaw wala buy wax day dem ba bitim réew mu soxla waxee loolu lépp nekk ay xeeti. ñàkk jox cër nit ñi nit nag bu la sa sa maanaam nit bu la jox cër bi nga moom yow yow nga xam li nga moom donc ba tey Sénégal yi tey war nañ na tey Macky Sall pexe yi mu defoon 2019 ba chaque élection yi ci ab diil moom ak Idrissa Seck ak Abdoulaye ak ñu bokkal ñu bokkal loon ñëpp xam nañ tey lii da ko wane tey lii mooy élection yi 2019 yi lii mooy dëgg résultat yi 2019 yi mu nekk nii donc tey li ma waxoon rek diil bi dafa yàgg waaye te yàlla mën na dëgg man leen rek leen rek laay jégul Sénégal yi man maa leen ciy baalu àq toujours dama koy wax jàppale gi ma jàppale Idriss Seck 2019 loolu rek laa gën a rëcc sama àdduna ndax Idriss Seck ñun nekk ay xale am am engagement suñu réew am yërmande suñu réew am yénn suñu réew tax ñu ànd ak moom ak li mu doon wax lépp fekk na li nga xam ne ñun lépp ay waroon ci suus dara du ci dëkk ñu ñu ànd ak moom sans condition sans intérêt sans dara indi suñu ay moyens suñu ak suñu suñu suñu suñu xam suñu engagement suñu lépp ngir Sénégal ñu ànd ak moom ba pare am ba ban gañe élection yi pour dem deuxième tour ndaxte moom dina Macky Sall bu yàgg xuloowut xeexut paasut bàyyi lépp mu sedd nekk te moom mu ngi diil diil boobu ne tey nekk mi ngi nii dëgg rek dëgg dëgg mujj tey mi ngi nii Sénégalais war nañ ko yow doot waa Thiès war yow ñun mën ngaa jaay sa bopp mais ñun waa Thiès mënoo ñoo jaay Sénégalais war nañ ko yow mën ngaa jaay sa bopp mais mënoo jaay Sénégalais yi donc tey dinañ wax rek ñun day suñu xol soo trop ci sénégalais yi surtout jeunes yi damaa am lu ma gis lu lu lu raar <clears throat> loo xamante ne man maanaam mën naa ne musuñu ko gis ay xale yu ndaw yu jóg dem di vote ji suba teel ah tranquillement dem vote ji ñibbi seen kër sans bruit sans wax sans ju bari mu nekk loo xam lu lu lu ma neex sama xol la ñoo xam ne tey réew mi suñu réew mi moom lañ am am ñu feneen te loolu mi ngi dépendre ñun xale yi ku ne xam ne Sénégal. wax nañ ne maanaam soixante dix pour cent de ay xale lañ ñooñu noonu nag tey luñ bëgg mën nañ ko am combat bu ñu porte mën nañ ko mane combat bi nag leen kese la mooy jëlee fi politiciens yi ak taxawaalukat yi ak sàcc yu mag yi ay sàcc yu mag yi tey ku ne xam ne tey élection yi tey li mu wane euh, boo xoolee ñi ëppoon xaalis ñi dàqoon a sàcc ñi dàqoon fen dàqoon wax lu du dëgg tey ñoo perte kon tey dëgg rek mooy dëgg tey Ousmane Sonko dañ koy félicité ah di félicité waaye yeewu askan wi yëpp li ñu leen félicité mooy tey Ousmane Sonko ku ne xam ne tey procès bi muy bi bi muy xeex ak bi muy incarné nii tey yàlla rek la ci jiital ak dëgg te toujours dama koy wax gis nit lépp looy def ngir yàlla te yàlla rek tax yàlla moo koy sàmmal boppam lépp loo def ngir sa intérêt personal kese tax nag mën naa réussir mën naa ñàkk réussir mën naa baax mën naa bon kon nag nekkal ci dëgg euh, te yàlla kese am yàllaay buur ñàkk yàllaay buur donc tey Ousmane Sonko ñu lay félicité bu baax ak waa coalition bi yëpp di félicité Barthélémy Dias di félicité euh, sunu grand Khalifa Sall di di di félicité sunu xarit Malick Gakou di félicité ñoom ñëpp daal coalition bi gars yi bari nañ mun ma lim ñëpp mais maa ngi leen félicité ñëpp di leen encouragé bu baax a baax a baax te xam ne bonne continuation ci xeex bi lii kese la ñi nga xamante seen tim dañoo ñàkk te amuñu yéene ngir Sénégal laax de ñi amuñu yéene ngir Sénégal yàlla Euh, jàppale taxawu leen ba beneen yoon seen yéene ñu eggale ko ci jàmm incha allah di visité des euh, euh, côté bi mu bokk muy Mbacke ak Touba suñu fàllu Mbacke maa lay di la ziar di di la félicité ci sa victoire bi di la encouragé Abdoulaye Niane mi nga xam se ne yàlla doon ko jàppale moom tamit Abdoulaye ñi lay encouragé. yéen a ngi ànd ak seen portail Baol Média nekk fii ci Mbacke Baol.